wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen baal àq di leen baal àq ci bis bu tedd bii ñu génne muy tabaski bu loolu jàllee nag ñu ngi amul naqar wu rëy ak ko tiis li xew sëñ abi bu sëñ Fall moom ma woo sànq xamal ma ni ma dafa am daayira bu ñuy wax xidmatul xadim di ay eaux yoo xam ne dañoo ñëwoon di siyaare si Muntaxa ci Touba sëñ bi digal leen ñu jëmbat ay garab ba am na ñu jël a jëmbat sa kër sëñ Touba ga ba ñu fa jógee ñuy siyaare bañ demee ba dëpp nag yoon feeñal seen mbégte ak seen cant sëñ Touba di wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ñu filmé ko tasaare ko ci réseaux sociaux seen kilifa nag woo leen. ajjuma bii ñëw huit heures ngir bëgg leen a ci tali bu sant sëriñam di biir loolu nag lu ñaaw la lu tiis la lu tegul fenn la nu ko yëgal nu koy naqarlu te di ko yëgal taalib yépp ñu ànd bokk naqar yi te xam ni lii kat jëkkewul ko tey ndax ci gannaaw am na ay sàndarma yu ñëwoon Tuubaa nuyu sëriñ bi toog ca suuf su jot bu noppi toog ca suuf tëdd bañ sol toog suuf rek naqari ba tax ñu tëj leen ñoom ñëpp a ngi ci kaso bi wax nañ ma loolu xibaar boobu jox nañ ma nañ ma seex ba seen am na benn colonel bu mu demoon Dakar daan ko seeti ko kooku wàcc bangam toog ci suuf jox seex bas bang ba kooku dañ koo sanctionné am na ay militaires yoo xam ne dañoo demoon mission bi ñëwee Touba di ko di jàng xasida dañ leen a sanctionné loolu nag kenn xamul lu mu ñëw kenn xamul itam xanaa xeex yoonu mbir la wala xeex diine bokk ndax France yi nga xam ne moo moo moo yilif nguur gi moom nu yilif yilif réew mi daanaka ba léegi mel ni dañoo amul seen indépendance ñoom de bu ñu masaa jóg ci màggal dañuy summi seen casque toog ci suuf tubaab yi gannaaw ñoo ñoo jógee tugal nag ñëw fii di ko def di ko defal sëñ Tuubaa kon nag ñu yaakaar sëñ Tuubaa gëm ko te dëkk ci réew mi di ko def kenn wur leen koo tere kenn wur leen cee sonsal loolu nag damaa xamul xeex diine la wala xeex sëñ Tuubaa loolu am laaj la boo xam ne dama koy laaj ñëpp te gis naa tamit góor jigéen ñi nañ bëree ci réew mi koo ci laal ñu jàpp la koo ci dóor ñu jàpp la te ko wax nit ñu baax ñu dara kenn du la jàpp kenn du la tëj kenn du la lëjënti réseaux sociaux ñu ngi ci xas kilifa yi dina yëpp turux suuf yooyu yëpp ñu ngi leen dal ci kaw ku mel ni Cheikh Al Khadim ku mel ni El Hadj Malick Cheikh Omar Tall Cheikh Abdoulaye Niass ila akhir ila akhir ba ci waa kër Thiénaba yëpp ñu ngi leen di xas di leen nekk lu ne ak xaalis bi di leen xas di leen saaga sax te kenn saafara ko te loolu nag nguur moo ko war a saafara te saafaru ko noonu nag suñu gis su bopp am na ndaje moo xam ni dañ koy def le 23 ca Ndakaaru ñu ko yëgal jullit yëpp di ko yëgal taalib yëpp ñu daje fa wane sunu naqar ak seet nañuy saafaraal suñu bopp ndax koo ne dumal topp fu ngeen jëm daa soriw te ñii nag dañoo taxaw suñuy xef te kenn saafaru ko ma bëggoon nag ñun ñëpp ñu ànd naqar wi ànd tis seet nañ ko saafara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu